bokk jullit yi gannaaw bi ñu santee boroom bi subhaanahu wa taala julli ci yonante bi alayhi salaatu wa salaam ñoo ngi leen baalu àq te di leen baal yàlla na borom bi baal ñu ñun ñëpp ñu fas yéenee waxtaane tey tomb bu am folo muy ngëneel li nga xam ne alquraanul karim am na ko alquran dafa bokk ci muhjisati yonente bi alayhi salaatu wasalaam yi gën a rëy ndax amul benn yonent bu mas a andi lu mel noonu moo tax kiimaan yi yonente bi andi bun la laajee bi ci gën a rëy mooy alquranul karim ñooñ alquran day borom bi nee na jooy sama ñooñ man yàlla sun borom amoonu njaboot ci kaw foofu ñi nga xam ne ñooy yëngu ci alxuraan ñooña ñooy ak njabootam yoolub jàng alxuraan day bun peese woon mboolem njariñ àdduna bi alal yi fi nekk ak yépp yool ba alxuraan am moo ëpp fuuf njëriñ loole nekk ci àdduna ak li ci biiram bépp xaraf bu nekk ci alxuraan mii ay yiw la làmboo yoo xam ne kenn xamul lu mu toll ndax yonente bi alayhi salaatu wa salaam nee na bépp xaraf ci alquran fukki yiw lay peese moo tax saa boo ubbee téere bi na alif laam miim alifun am nga fukki yiw boo nee laam am nga fukki yiw boo nee miim am nga fukki yiw kon làq nga fanweeri yiw te duggagoo ci biir téere bi kon téere bu toll noonu ci yiwam ak i njariñam borom bi wax na bépp aaya boo xam ne nit mokkal na ko ci su ëllëgee daraja ju rëy la ko cay borom bi yëkkatil ci àjjana mu wax na ñi nga xam ne ñoo gën ci kaw suuf kat mooy ñi xam téere boobu ba pari wóol ba di ko xam ko xamlewaat ñooñu ñooy ñi gën ci kaw suuf sun borom ne duma mbugal mukk nit koo xam ne waxtu na alxuraan ba pari di ko jëfandikoo nee na kooka day du gis sama mbugal ki jàng alxuraan ba man ko tam xool la alxuraan digle mu di ko jëfe kooka borom bi nii du ko mbugal mukk nee na ñi nga xamante ne nii ñooy borom alxuraan su ëllëgee yonente bi alayhi salaatu wasalaam da leen yëkkati ba ñu tolloog xulamaaw yi ay daraja te xam ngeen kat gannaaw boroom xam-xam yooyu yi gannaaw yonente yi ñooy ñi ci ëpp daraja ndax alxulamaa warisatul anbiyaa waaye ñi nga xam ne ñooy waa alxuraan su ëllëgee ñoo xullamaa yooyu ñooy tolloo ay daraja boroom alxuraan day ñi nga xam ne ñooy waa alxuraan sun boroom dana leen teral bu ëllëgee waaye taraanga ji du yem ca ñoom képp waaye seen waajur ya leen jëloon yóbbu leen ñu dem jàng it ñooñe danan làmbootu yaaba ju mag a mag joo xam ne borom bi rekk mooy ki ko xam alxuraan day mooy li nga xam ne moo gën a gaaw ci jigéen nit ki boroomam mooy taxit borom bi sopp ko mooy muy nafar téere bi rekk ak di ko yër ak di ko jàng buñ demee ci mbind sayxil xadim radiallahu taala anhu nee na fa man araada qurba min mawlaahu fal yaqra il laa yansa nee képp koo xam ne bëgg ngaa jege sun borom day nanga sax ci jàng alxuraan te bañ koy dëddu moo tax kaamil bi du kaamil bu ñuy jël rekk di ko teg ci saal di ko fompaka tour parfum naam loola baax na ak di ko teg ci sun gannaaw oto yi waaye la ëpp solo daal mooy di ko nafar te saa boo xëyee nga ubbi ko yër ko doonte benn xaraf nga ca xool sax ubaat mooy gën dëddu ko weer ba ñaari weer te doo ko xool loolu moom musiba la ci jullit bi mbokk yi bépp kër boo xamante ne nii ña ngi fay jàng alxuraanul karim day aw yiw du fa jóg barke du fa jóg te boroom dana wattu waa kër googee noona it réew mun koy jàng noona rekk lay demee xam ngeen ne réew mii bokk na ci li ko aar mooy ndaw ñiy jàng alxuraan te di ko wattu rek waaye bu du toon ak loolu musiba yu rëy rëy am na fi ndax liñ fiy dégg ci fitna ki musiba ak i bàkkaar ak i tooñ ndaw ñiy jàng alxuraan rek ñoo wattu réew mi waaye kon ba tey sunu boroom wàcc na fi ay musiba yu rëy rëy kon nan xam ne téere boobu kat mooy téere bi nga xam ne képp koo xam ne ubbi nga di ko jàng sunu boroom digle na nan wut nan dal jëm ci yow ak déglu la te na teg te bañ a tee def benn yëngu-yëngu wala burwe waaye ñuy setantal la muy wax tën fas yéene koo jëfandikoo bokk yi téere ngi nii boo xam ne sunu boroom nee na saafara la yërmande la ci mboolam jullit yi saafara bii nag naam am na lenn ci boroom xam-xam yu ñu contesté di bind alquran di ko jox nit muy sangoo wala muy takk waaye la ëpp ca ñoom lan d'accord daal mooy muslaay ya ca nekk koo xam ne mënoo di ko jàng ku ko mën a jàng nag moo gën waaye koo xam ne sam jàng àggu fa manees na la koo bindal jox la nga takk waaye bu boobaa it ba mooy bu ko dugal ci wanag loola lenn ci boroom xam-xam d'accord nan loolu waaye ñoom sifa ak rahma ji daal sun boroom nee na alxuraan moom loolu la moo tax ñi xam yàlla daan ko bind di jox ngir muy takk wala di ko saafarawoo ndax njariñ loolu lañuy ñuy dab téere ngi noonu boo xam ne képp ku koy jàng sun borom nee na saytaani ak yàqkat yi ak yéefar yéeg ñi weddi yàlla danga am kiiraay gu dox sa dikk ak ñoom ba doon man ci yow dara téere ngi nii boo xam ne day nit ak jinne li ñuy bari bari pexe ak li xam-xam di gën a yaatu tey waaye nit ak jinne fun boroom nee na fun booloo woon bëgg andi lu mel ne benn xaraf képp ci alxuraan fun boroom nee duñ ko mën mukk kon nag téere la boo xam ne lottuloo na mbooram boroom xam yi lottuloo na nit ak jinne ak li ñuy nekk nekk way nit ji bopp di nekk nekk ñu dëgër bopp xam-xam tasaaroo ci ñoom waaye mënuñoo fexe ba def lu mel ne alxuraan xam ngeen ne jinne yi nga xam ne ñoom la nit ñi yéem sax bay jële ci ñoom ay xam-xam jinne yooyu moom alquran da leen yéem bun masaa dégg yonente bi alayhi salaatu di ko jàng ñoom ñëpp dañuy yéemu xam ne lii moom ci borom bi rekk la mën a bàyyi koo fa xaalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusli fa amana bihi wala nusrika bi rabbina ahada dan daan wax ne ay aayaa gi noonu yoo xam ne day lu yéeme la tey dafay gindi nit ki jëme ko ci njub ñoom jinne ya wax nañu ndey gëm nañ lii tayit duñ bokkaale boroom bi ak dara kon nag téere la boo xam ne képp koo xamante ne nii wattu nga ko su ëllëgee sun borom dalay wax na la tari taril di yéeg jëm kaw ci garafiyal ya nga xam ne moom la waajal ñooñ alxuraan ci àjjana lun tari di gën a yéeg seeni garafiyal di gën a kawe kon nan xam ne ay gratte-ciel fii ci àdduna du ku lu am solo waaye gratte-ciel ya yàllay xaare waa alxuraan loola mooy la ëpp solo foofu ndax fii kat lu gratte yi rëy rëy ak luñ ko puukarante puukarante amul ci benn bu nit ñaari di dëkk lu mat ñaar fukki at gannaaw ba mu ko tabaxee ba noppi ndax néew na nit ki buy tabax ay sato wala muy tabax ay tabax yu yéeme fokk mu làkk ñeent fukki at jëm juróom fukki at kon wóor na ko ne tabax ba moom mënu caa dëkk lu mat ñaar fukki at wala bu ko dë wala bu guddeew fan dëgg ca lay dëkk ñaar fukki at yu mat waaye bu aw fanam gudd sax du mat lool ndax yonante bi alayhi salaatu wasalaam nee na sama dundu xeet wii fiinu dundu mi ci diggante juróom benn fukk jëm ci juróom ñaar fukk kon xeet la woo xam ne gudd ñu fan xeet woo xam ne nag saw fan guddut tabax ay sato yu kenn xamul lu mën a ñàkk ca kooka moo tax dañoo wax ne jinne yi suñ defee nit ñi tabax tabax yu rëy ñoom ree da jàpp ndax dan naa ñii ni féenu fan gàtte ñuy fémbu lu toll kon nan xam ne gratte yi am solo daal nañu ko waajal mooy fa nga xam ne fa la ñuy sax waaye jaaruwaay bii nga xam ne balaa ëllëg nga dem ba ko fi max yàqu ko ràpp yàqu ko loolu amul benn solo waaye nañu waajal gratte-ciel nga xam ne moom la waajalal ñun alquran te yooya moom du ràbb mukk te fa sax ko faw kon ñoo ngi ñaan suñ borom mu taas ñu ci barkeb ñu yëngu ci alquran ba bu ëllëgee tabax yooyu leen seen borom waajal suñ borom taas ñu ci seen barke ban man koo bokk ñoom xam ngeen ne alquran kat ku ma sa gën ci la gën wax nañ ne Seydina Jibril li tax mu gën ci mboolam malaayika yi mooy wàcce gi suñ borom wàcce alquran ci moom mu di ko jël di ko indil yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon loolu la jibril gën a yeneen yonente yeneen malaayika yi waaye wax na ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam li tax mu gën yonente yépp mooy téere bi ñu wàcce ci moom te mosuñu ko wàcce ci kenn ca la mujj gën ñépp waaye xeet a ngi woo xam ne it li tax ñu gën ci mboolam xeet yi mooy téere boobu rek kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas li tax ñu gën ci mboolam xeet yi mooy alxuraan min am ca yeneen xeet yi amuñu ko waaye aw weer a ngi nii gën mboolam ay weeram te mooy weeru koor te dara waralul mu gën lu dul alxuraan gi wàcc ci moom rek ca la ami gëneel loola waaye suñ demee ci biir weeru koor woowu it ak guddee nga ca goo xam ne borom bi nee gëne na yeneen moroomi weeram junniy weer te loola la lenn mayu ko ko lu dul wàcc nga alxuraan wàcc ci guddi googee kon téere la boo xam ne lu la ko gën a jege rek loola moo la gën kon nag nan xam ne téere la boo xam ne ñu mës a gën ñépp ci lañ jaar ba gën kon ña cay yëngutu ak di ko jàngale nan xam ne buñ jug mukk ngir di ko jàppe business waaye nan xam ne toorub yàlla la boo xam ne ku ca ne bàyyeel borom bi ak sa bopp moom la war ci yow dana ko def ndax suñ mag ñu baax ñi sos daara yi fii ci réew mi kër ba ndoona la nekk fi ba nëga ni ñu di ko donnante ñooña day mosu yaakaar dara ci état wala ñuy yaakaar lenn ci mbindeef waaye dañoo jëloon seen mbir yépp joyal ko borom bi subhanahu wa taala mu taxawu leen ñu dund leen war a dund ba xëy wu ci seen te liggéey boobee ñu nekkoon dara yàquwu ci kon nan xam ne alxuraan ku ciy jëngu daal sa ndimbal kenn la war a doon muy borom bi tey nag wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa xasbu kon nag nan xam ne téere ngi noonu boo xam ne moo teral ñi tëdd ñépp ku mas a am taraanga ca nga ko jële ku mas a tëdd ca nga ko jële suñ demee ci mbind sëriñ bi danañ fekk muy wax ne alxuraan moom yi kat jàpp gu ma ko jàpp di ca diyaaleeg suñu borom ca laa mujj nekk rotukaayu way way mar ñépp naajaani al munfiru bil quraani xataa xadawtu mawrida samaani wax na ne su ëllëgee ba sun borom di xisaab jaam yi kenn ku ne ñu jóor say jëf war laa xisaab xool sa jëf ju baax ak sa jëf sa jëfi safaan lu ci ëpp sëriñ bi ne sëriñ tubaa na bu boobaa xadaytullaha wa rasula wal kitaab mustaxniyan an al xisaabi wa sawaab nee na bu boobaa jël naa alquran teg ko ci sama kanam bu boobaa dana ma doy sëkk wala fi mu dima xisaab tukkeem bu rëy bii mu defoon it nee na kama ca àndaloon ci biir tukki ba ba ni ma dellusee mooy alxuraan rek rafiqi kitaabullahi kon alxuraan a ngoog ku ma sa tedd moo la teral ku sa am dara ci ci yàlla mooy ki ko may kon nañuy taxawu ña ña cay yëngu ak ña koy jàngale te xam ne foofa rek la aw nekk foofa la jëf ju baax nekk foofa la tuyaaba joo xam ne ëllëg suñ la ko defalee ci sa téere yi jëf da nga xam ne la matoon def def na ko ñoo ngi doon fàttali ko yi démb kenn ci maam yu baax yi di sëriñ Mor Soxna Mbàkke di taawu maam Mor Jaara démb lañ ko doon ñaanal fii ci Mbàkke ci këram googu ci Mbàkke xewar ñoo ngi ñaan suñ borom tabaraka wa taala ñu lañu fa jàng ci alquran jàng ko fa ci xasida def ko ci ay salaatu ala nabi sunu borom jotale ko ca dotti ko ci raw datoom bu tedd ba moom la sëriñ Moussa a wax ca moom ci ay jikko ca bam koy mërsiyaal loola doy na sëkk yokk na mbàkke ba mu yaa mu yokk ndokk ba mu yaa bënn fa teen bu fees ca yaa màndal na njéeréy mbàkke ya dem bay wax ci biir naa cay li mu def ci xeeti ñam ngir ay ganam ak i dëkkam mënul ganam tëlay dëkkam defar na wuuday mbàkke ya kon sëñ Mor soxna seenu jërë yéen waa wuude amul leen ludul moom waaye moom it amul ludul yéen kon ñoo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala taas ñu ci barkeem te taxawu njaboot ya nga xamante ne ni moom la fi bàyyi ñam nekkal ca sàq yi tuyaaba jam jën ya nga xamante ne nii ñaan yën doon def démb ñoom ñépp suñu borom jotale leen ca tàmbalee ca taawam bu baax ba fiñ moo doos ku ak mboolam ay rakkam ak mbool julli ña fa ak taalibe ya fa ne suñu leen te yokk seen yërmande te taas ñu ci seen barke allahuma la tatah lana sanban illaa xafarta wala xamman illaa farajta wala daynan illaa xadayta wala xaajatan min hawaaiji dunya wal axirati illaa xadaytaha ya arxama arrahimin rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina xasaaba annaar wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi al axyaar wa sallama tasliman kasira yaxfirullaahu lii wa lakum wa li saa'iri